xat waaye ñëw def am mbégte dajawaat ak yow ci lii nga ne yor nga ko yor ne wax dëgg yàlla ñëpp bëgg nañ ci ñëpp kontaan nañ ci ñëw bi nag ci cadre ministère des ne président bu ci am ay nag pour defar moderniser ko ba dem bi ak dikk bi mën a jàppalal bu baax a baax a baax am ci joxe ay ndigal nag depuis 2015 dafa waxoon ne kaar yi am Dakar ñu kaaru appi nañu fexe ba mu yegsi ci yeneen dëkk yi nag Touba bi moo tax 550 kaar yi am appi yóbbu leen ci yi li ci ëpp Touba lañ ko indi cent cinquante car Afrique ñu ngi daw ci Touba ci cinq cinquante beneen dëkk yëpp ñi ay vingt ñi ay trente ay quarante la am waaye yow kenn du la defal nettali ci diggante président de la république ak sëñ Touba mi fi nekk ndax seen diggante dara ëpp ci président bi ñuy wax modernisation transport mu ne boo leen jógee Ndakaaru na ci Touba ko ndax sëñ Mountakha am naa yéen lépp lu muy liggéey ci état man dey bu ma amee fukk juróom-ñaari ñu andi ko ci Touba moo tax mu ne ñu transport bii ngeen commencé jox naa la ci ndigal lépp loo mën lu Ndakaaru am ki ca Touba gis boppam moo tax barka bi mu joxee kaar yi nga xam ne joxe na ko ci modernisation transport interurbain mu ne ma jox naa la ndigal pour cette place yi nga xam dañ koy indi pour defaraat transport urbain nga ubbee ko Touba tax ma ñëwoon tey ànd ak président Edifa ak regroupement a routière yi ak président Serigne Sall bu Diourbel pour joxe taxawaay taxawaayu sëñ koso oto yooyu nga xam ne ay oto yu baax njëg bi jàppandal tey du am benn pollution maanaam du am poussière bu bari du am gaz carbonique bu bari bu indi benn xat-xat ci dëkk bi monsieur le maire nga ko woon te gis na oto yi mu nekk oto yu baax ñu bëgg ci indi nag yu bari pour que transport Touba nekk transport bu ñu organiser ci ñaanit seen seen ñaan ci sàkku seen ñaan ci sàkku yi ngeen gën ñu cee dimbale ci transporteurs yi ak chauffeurs yi ba li ñu bëgg ci transport bu mën a mel nañ ko bëgg ndax Touba dëkk bu yaatu la Touba dëkk la boo xam ne déplacement yi daf fi am solo kon faaw ñu organiser loo te loolu nag mënuñu koo def te amuñu ci ndigal ngeen jàppale ñu ci donc oto yooyu ñëw nañu indi nañ fi vingt cinq waaye cent cinquante lañ ko war a indi bëgg ay loo yu baax waaye tamit dañ ci dugalaat Toyota yi aussi indiwaat ko transport interurbain bi ma waxtaanee ak maire bi aussi ñu gis garage bi nee naa ko gaaru Thiel bi Touba war naa am gaaru Thiel model gaaru ceer bu mucc ayib bu yaatu bu féex boo xam ne transport bi daf fiy développé wu bu baax a ya, baax comme président joxoon nañu ndigal nag ne nañ moderniser gaaru ceer man dama bëgg première gaaru ceer li nga xam ne waxtaan naa ci ak AGETIP ba ñu jox ñu maquette bi te mu war a nekk ci lu tolloo cinq hectares naa ci waxtaan ak sëñ bi waxtaan ko ak sëñ Bas waxtaan ko ak maire ñu mun koo am parce que gaaru ceer warul nekk ci biir dëkk gaaru ceer ak aéroport ak aérogare waruñu nekk ci biir dëkk parce que dañuy xatal dëkk te gis nañu déjà bi ñuy ñëw kaar yi ñu ngi wàcc nit ñu ko sori ñuy dox di ñëw loolu nag bu transport intérieur bi baaxee ñu am gaaru ceer bu nekk a un deux kilomètres defar ko defar bu mucc ayib boobaa dem beeg dikk dina am jàppandal te xataay bi dinañ ko dinañ ko mën a moytu moo tax gaaru ceer yooyu dañ ci waxtaanee dañu ne dañ koy ñuy njëkk a def biir Touba lañ ko bëgg a def pour pose première pierre buñ ci amee seen digal dañ ñëwaat nag waxtaan ci ak regroupement bi wan la maquette bi ànd fi ak AGETIP wan la ànd fi ak ñi koy defar nga xam ne boo leen ko gisee ba jàpp ne lii lu baax la ci dëkk bi ngeen jox ko ci dëggal ñu tàmbale liggéey daal li ñuy jot mooy lépp loo xam ne gouvernement mu ngi koy liggéey na ci gis boppam bu baax a baax loolu nag fekk na ñun ñëpp nag ñu sawar moo tax bu màggal di jot gouvernement bi yitte yëpp mooy xool nan la ñuy def ba nekkuwaayu askan bi mën a nekk nekkuwaayu njàppal ci wàll woowu it andi nañu fi ay masques toll ci vingt cinq mille masques ak ay gel pour jàppale leen ko ci xew-xew bii nga xam ne sëñ Muntaxa Muntaxa na si ndigal mooy kuy ñëw ak foo mënti dem na nga na nga def sa masque ndax aaru ar sa bopp aar aar aar askan leneen li nag mooy dem beeg dikk bi aussi wax nañ chauffeur si parce que dañu defaale campagne aussi sécurité routière wax chauffeur si nañu def ndànk andi nit ñi ci jàmm yóbbuwaat leen ci jàmm ndax fii ñu jëw si dañoo ñëw si pour jaamu si yàlla kuy jaamu yàlla nag da war a waajal sa bopp sa mentalité ci sa esprit ci sa yar ci sa teggin sa njub ak jubal ndax nee naa leen bay bañ toogee di waxtaan ca chauffeur ya naa leen dëkk bii sëñ Tuubaa ci loolu la ko def liggéey kuy dem ci dëkku diine nag diine tax laa jóg jaamu yàlla tax la jóg war nga ci ànd ak dal war nga ci ànd ak dëppoo li yoon santaane li yoon santaane nag mooy def ndànk daw ndànk bañ a yàkkamti bañ a xuloo bañ a xeex bañ a faat benn bakkat te loolu mooy sago sëñ Muntaxa loolu la bëgg ba bëgg nit ñi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm ñaan na ko li ci des nag suñuy loxo la nekk suñu taxawaay la nekk te ay nit dong lañ ay jullit lañ ay jaamu yàlla lañ ñaan leen kàddu googu it ngeen ñu ciy dimbale ci wax ak chauffeur si ci wax ak transporteur yi wax dëgg yàlla ñu sàmmonte ak code de la route ak sécurité routière bu ñu ko defee rek màggal gi jaar ci jàmm sëñ bi amati ndam ñun ñii nekk ay taalibeem amati ndam yow mii toogal ko fii te lépp loo xam ne nii mooy jëmale màggal gi ci kanam mooy organisation bi toogal ko fi ndax loolu nga am ci ndam ndax yow sa ndam sunu ndam ñu lay sant nag sunu cantu bopp boo xam ne ni Omar Youm waxuma ministre waxuma dara Omar Youm citoyen xam ni nga tooge ci biir askan bi ni nga tooge ci biir république gu Sénégal ak li nga fiy liggéey lu ñu xam ak lu ñu xamul moo lay sant di la gërëm ñaan yàlla lii nga yàgg di ko yor nga ciy am ndam saa su nekk ndax nga ci nga koy yor muy am nekk ndam waxuma sagu yoonu murit la waaye sagu lislaam la sagu Sénégal yaa ngi koy def ak dal yaa ngi koy def ak ubbeeku yaa ngi koy def ak nite gu mat sëkk ak xam-xam nag lal kon ku bëgg lu baax kon na lay ñaanal yàlla may la wér yàlla yokk sa sutura yàlla yokk sa sago ba nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa bii liggéeyal sa maam bu ñuy séddale suba kenn du la ci ëppale ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lay sant la gërëm man nekkoon naa directeur cabinet président de la république xam naa na nga taxawee woon ak na nga doon def ak na nga ñuy jàppale ak na nga ñuy dimbale ba bu ñu jëm see Touba xam ni ñu mën a tege suñu tànk ak ni ñu mën a defee ba lépp mën a jaar yoon dëppoo ak dëkk bi bëgg mais dëppoo aussi ak li Sénégal bëgg loolu moom man personnellement amal naa la ci cant bu rëy rëy rëy la gërëm di la sant man ak délégation bu ma àndal yëpp nag gouverneur bokk ci directeur des transports routiers bokk ci directeur général CETUD bokk ci suma directeur de cabinet bokk ci ak administration bi nekk ci wépp ci transport yëpp bokk ci ñu ngi lay sant di la gërëm di la masawu coono di la ñaanal yàlla yàlla defal na jàmm ak aw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh